asalaamaaleykum maa ngi mangi ngi nuyoowaat di nuyu sama frère yep di ziar ñep di présenter wu euh, ci ben live vite fait rek man la Abdou Karim Gueye ngeen gën ma xam ci Karim Xurum Xaax di rappeur activiste membre du mouvement Nittu Dëgg dellu si waat tuuti rek pour lo xam actualité la xam nga bon comme ñun nak euh, da wax souvent ni comme yàqkat yi moom yak yàq duñ nopi duñ taxaw tout le temps ñi ngi yàq workat yi taxaw mu tout le temps ñi ngi wor fenkat yi ngeen bal ma ci baat bi soskat yi duñu taxaw tout le temps ñi ngi sos ñun ñi bëgg defar waruñu taxaw waruñu noppalu waruñu taxaw waruñu noppalu mooy li bomaar la waxoon bomaar dafa dem zimbabwe di def concert ñu dóor ko bal quoi biñ ko dóoree bal mu daanu ñu dem faj ko mu ñëwee mu ne day ñu ko defaral ko pansement mu ne day yéegaat ci kaw scène bi quoi bi mu yéegee ci kaw scène après ñu laaj ko quoi bi mu paree ñu ne ko mais lan tax arrêté woo quoi pourquoi mu ne non mu ne ñiy yàq àdduna bi fekk taxawuñu rek comme ñoo taxawul ñun taxaw ñun ñi bëgg defar donc on je pense que dafa am solo trop trop ñun Nous, on a 60 ans wala daanaka 70 ans de se suñu au Sénégal on a 70 ans de tardé 70 ans de nekk ci ay mensonges ay 60 ans 65 ans de nekk ci politicien politiciens yi ak sëriñ ci ñi ñi caaxaane dañu fowé bon waxuma sëriñ sépp généraliser wu ma quoi

te pourtant candidat yooyu ñu doon xeexal yëpp ñu ci soo gis candidat boo xamante ni c'est un panafricaniste c'est jeune boo xamante ni a discours bi nga xamante ñun moom lañu yàgg jooy te mosuñu gis ko ko wax discours bi nga xamante dañ ko doon dégg ci ay Thomas Sankara comme ni ma ko waxee saa ne dama ñëw pour wax juste rek ci li nga xamante ni mooy wàllu transhumance bi nga xamante am na actuellement dëkk bi yëpp di ko coow ñu koy coow ñu nekk ci transhumance bi Aïssata Tall Sall ak ay ay ay ay ay ay rek c'est-à-dire ba léegi importance bi ñun ñuy jox politiciens yi dafa am benn wax bu ma benn grand waxoon sama benn grand bu intelligent grand Serigne Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana dafa décédé mu ne ma Karim gis nga politique boobu ma lay kii bi may wax li waaye Ousmane Sonko yi ñëwuñ de mu ne ma gis nga Karim politique actuellement mu ne ma régime yi fi nekkoon yëpp koo ci gis bu nekk ci ministère nekk ci ministre nekk fa six mois démissionné wul xamal ni du waaja

nee bi mu après ñu dem ci Macky Sall on a négocié mais gars yi dem len dictionnaire ngeen xol négociation lan lay signifier tradition négociation au vrai sens du mot négociation moy waxale négocie dafa ne on a négocié dañu waxale c'est-à-dire intérêt personnel am la quoi intérêt am la quoi moom personnellement daf ko négocier quoi c'est-à-dire Sénégal la négocier quoi pour moi, amna intérêt amna lu mu jëriñ Sénégal lo xamni mom la quoi intérêt am la mom loolu la wax de dafa on a négocié maintenant.

bu leen xaar mu defa ñi daf may woo na noonu lu tax gars yi du ñu ànd Ousmane Sonko du ñu mës a ànd Ousmane Sonko parce que ñii dañoo nekk ci système bi pendant 60 ans pendant 40 ans te Ousmane Sonko anti système la anti système la ñoom Ousmane Sonko arrangé wu leen benn yoon benn yoon donc ñun askanu Sénégal ñoo war a yeewu ñun ñoo war a yeewu bu baax a baax a baax li ñu bëgg ñun ci sunu réew ñu xool ki nga xamante ni ni kii moo koy def ñun ñu and ñun ñep and ak mom baña xaar kenn parce que affaire bi du affaire u ndigal ak sëriñam quoi du affaire u taalibe affaire ki sama maam moo nekkoon ci lii amul benn politicien bo xamanteni am nga fi ay talibé yu la accro fi kuñ fi ku fi politicien ku fi askan wi jàpp ne xaw nga tané nga and ak kenen bay liñu gëm askan dañ lay won ginaaw donc bu len japp ni nit ki mo tranché bu len japp ni euh nit bu mais peuple dañ koy top lolu c'est dépassé c'est révolu tollatuñu fu politicien di amé ay talibé comme ni ko Abdoulaye Wade amee Abdoulaye Wade rek mo fi am lolu actuellement Abdoulaye Wade rek mo fi am ay talibé te genn wàll yëpp war nañ ko ñëpp a ngi koy war Aïssata Tall Sall sax Macky Sall ni def ni def ni def euh, ni def euh, Khalifa Sall xoolul Macky Sall ni def Barthélémy Dias Est ce Sall xoolul sax fi mu jaar. yaakaar ni c'est des choses yo xam ne yaakaar ni ñun ñëpp ñoko ko bokk ànd gis mu leer léegi nak xam nga ñak jom ñak jom ak ñak ngor am fu nek am ci xet bu nek ñak dignité am ci xet bu nek mais ñun sénégalais ñun nañ conscient nañ conscient man pour man. lii du dara lu dul xéwalu yàlla ndax xéwalu yàlla wàllu yàlla yi dañuy wax ñu ne ñu ne ñiy jëm ci yàlla dañuy bëri nekk mbooloo bu dul jeex bu ñu demee ba ci bunt bi ñuy duggee ci yàlla bunt ba dafa ndaw taxawaay ba pour rang dafa yàgg mu ne ñi nga xam ñoo dëgër rek ñoo fay des di xaar ba seen place jot ñu dugg loolu wàllu yàlla dañ koy wax souvent arrivé dañ koy wax te wax jooju dafa am solo trop trop lu tax mu am solo mooy tey balaa tey balaa le 24 yàlla dinañu won ñi nga xamante ni amaluñu njëriñ Sénégal ñi nga xam ne yàgg nañ wor Sénégal ñi nga xam dañoo yàgg lekk intérêt Sénégal après ay bukki lañ ay mbaam lañ yu sol mbubbu gaynde toog di gouverner doon gouverner ay mbaam lañ yoo xamante ni nii dañoo sol ay mbubbu gaynde doon gouverner dañu doon nax léegi nag heure nag bi heure nag nekk gaynde jotee nekk buur nekk kilifa jot dañoo ñu waroon na yuuxu yuuxu gaynde ñu naax loolu lañ def dañoo ngax ay mbam lañ rek ay warkat lañ te loolu au fait nit nit jikom kenn mënu ko dindi kenn mënul jindi dindi jikko nit ak ak li nekk ci mom parce que dafa nek ay ay mbir dafa ñom dañoo nek ay nit yo xamni la politique autrement arrangé wu leen la politique au sens du mot politique l'art de bien gérer n'est ci ñoom xamewuñ ko jàngale la parce que la politique que nous selon Machiavel dama le tout le temps selon Machiavel politique que nous politique bi nga politique bi nga xam intérêt say mbokk say c'est say sa poste qui kat kat du ci c'est loolu nous su fekkee candidat bu autrement. je ne man pour la politique autrement un bëgg sama askan jëriñoo sen sen je seen seen contribuable bi ñuy def ci ci ci réew mi damaa bëgg sama askan jëriñoo seen jàngum alxuraan seen jàngum Je damaa bëgg sama askan nous, seen seen santé bëgg sama askan un courant un pétrole seen ressource minière damaa bëgg sama askan jëriñoo ñu effacer ay caisse noires. intérêt politique ci le Ousmane le intérêt politique intérêt politique personnel le Ousmane Sonko dindi dem leen ngeen lire solution loolu yëpp da dindi sànni ko lepp la delloo askan wi dafa ni Ousmane Sonko dafa ni dafa ni politique président Sénégal mooy mindaanu Sénégal maanaam mindaan moy du question xeeb mindaan moy kuy liggéeyal ak Sénégal moy ko xamni ci soxna rew mi lay xëy ju dox suba ngor ngoon benn Sénégalais bu nek da ko war ñor jigen bu am ba dis mom moko ko jël en charge jigen bu nek en état de grossesse mom président mom mom mom dafa war a ni lim cër bu mu ci am bu ci amé jëkkër bu ci amé 100 mom président amna ci 25 pour cent benn jigéen bu nek bu ëmbé c'est-à-dire loolu conscience yooyu boobu la conscience bob lolu xel bob boko amé amee xalat yow jël 1 million sax diko ko denc yow nga gis sa dëkkandoo bu xif léegi lolu nak dimension bob dimension parce que lepp ci nit nit lepp ci xelam la nek lepp ci xelam la nek donc dimension bob nak nit ku ko am dëggantaan yombul te moom la Ousmane Sonko am mom lay wax souvent mané kon ñun waru ñu xaar ben bu len bu len dara bett bu len xaar ben politicien ñew ànd ak Ousmane Sonko bu len ko xaar.

ñun ñi gëm Sénégal gëm suñu réew duñ ko négocier kenn léegi nag yow mi nga xam ne sa bopp ngay xool yow bu la neexee nga négocier ko ñi nga ñi ngeen gis ñëpp ñuy ànd ak Macky Sall parce que ñook Macky Sall ñoo yam parce que idéologie Max, liñ koy xeex yépp mooy parce que Macky Sall dafa yor pouvoir bi rek ñoom ñu nekk opposition dañ ko dañoo ñàkk pouvoir bi rek bëgg récupérer pouvoir bi ñàkk nañ pouvoir bi bëgg ko récupérer waat parce que keneen moo ko yor ay problème crypto personnel ay problème jalousie ay ay ay ay ay rancune ay ay ay loolu moo nekk ci Macky Sall moo nekk ci opposition bi ci ñu bari gëm ni ñoom ñoo wara jité ñëpp faté yalla yaakar ni ñom waru ñu am problème xaaliss xaalis alalu askan wi la ñu war a ni ñom dañu war seen doomi di dawal ay 4 4 yo xamanteni ay 70 millions lay jar maa ngi koy expliqué l'autre jour ci Mame Mbaye Niang Mame mi ngi togn benn parenthèse bu ndaw mo ko Mame Mbaye mi autom bi mi dawal la il paraît 70 millions lay jar 70 millions lay jar 70 millions te yoyu c'est des choses yo xamni je pense que c'est très important pour nit ñi bàyyi ko xel légui nak daa am benn affaire bo xamni aussi bëggoon naa ko souligner wala ci live bi mais quand on parle euh, de euh, quand on parle par exemple des montages montage nga xam def parce que émission yi ma Ousmane Sonko président Ousmane Sonko euh, sama chaîne YouTube Abdou Karim Gueye dafa am ñuko jël l'a site bu ko jël dag dag ko collé ko ko après Ousmane Sonko dafa wax lan dafa wax mais original bi bo chaîne YouTube Abdou Karim Gueye di nga gis carrément intégral li président Ousmane Sonko ñu waxtaan mu wax lu ci ni mu Sénégal mu ay wax mucc ak bi Ousmane Sonko jox jox sëriñ si ak respect bi mu religion bi Sénégal religion yep nag laa christianisme islam religion yep parce que dafa Sénégal ay réew la boo xam 95% de musulmans la cinq de chrétiens gamu ñeppay dem gàmmu Tiwaawan ñeppay dem magal touba ñeppay dem mu nekkoon dëkk bobu dafa wara a am budget spécial pour loolu chrétiens yi bi mu ne dañu a am budget spécial pour loolu mu ne loolu nak warul nek lo xamné président bi mooy jël malade rek dem di gis sëriñ si di len ko jox melni ko ku leen corrompre mu ne loolu warul dafa war a nekk loo xam ni ñi voter budget santé voter ni budget santé assemblée nationale voter budget pour caisse noire wéram président bi nañu voter budget pour jang bi non lañu wéré voter budget pour religion yi pour këru diine yi kooku noppal na leen koku limu mu wax leer na léegi nag jarul ay montage légui nak lu jëm ci walu montage moy walu sos fen jamb rambaaj ak jaxase loolu warul kenn loolu yeen ñi nek man mi ànd ak ñi ànd ak man si vous êtes des patriotes ñi nga xamni gëm nañ ni Sonko moom espoir espoiru Sénégal waru leen bok ci monde boobu vous n'avez pas le droit de monter les images ou les voix de qui que ce soit pour propagande parce que ce que seen bàmmeel a le droit monter sax waxu Macky Sall monter di coller ci xam Macky Sall de ko contexte Il droit Il A le droit def ko Macky Sall fi def mu ay Il fi gu jarul montage ay waxam yu xam Il mu jarul montage jarul sos a droit sosal ndax kat sama gars a yalla de Dieu. te ji est temps de libre li ngeen def kérok gis na ñu jël voix wu Thérèse Faye ne voix wu Thérèse Faye la monté ko té lool dara wuuru ci c'est pas vrai nañ bàyyi sen so sos yi jaru quoi sos yi jaru ko leen fi jëlee yomb na liñ fi liggéey ñëpp gis nañ ko donc jëri leen fi jarul sos kon kenn amul droit monté mo xam parti au pouvoir la wala opposition ma ngi gis ñu jël ben femme né mom moy jabaru Mame Mbaye jël ay mu jël ben femme bu yore ay xaalis or que c'est pas la femme de Mame Mbaye ça n'a pas de sens lan la leen jarign ngeen japp image yu jàmbur di détruire di ci créer ay wax yo xamni jaroko ndax ñom def nañ fi lu ne weng lo xamni jarul sax kole jarul jël ko rek nga tek ko mu leer mu leer nañ donc il y a des choses yo xamni pour man da ngeen wara comprendre baax nit ñi ñi ragal yalla man dama woo sénégalais ci nekk nitu dëgg quoi nekk nitu dëgg keroog Ousmane Sonko fallo nga nekk nitu dëgg ci mu waxé limu wara def mu def ko su deful li mu war def nga wax ko li nga war di nga waxon defoo ko nekk nitu dëgg ci ni ngay attaquer Macky Sall non nga xoy attaquer pouvoir bi ak opposition bi nekk ci nitu dëgg ci angle yëpp parce que il faut ñu dëgg hein ah. dëgg nag boo koy wax des fois dalay lay gaañ yoon mi koy wax parce que ñun ñoo on a fait le choix de faire ñu ne ñoo def combat wu patriotisme te patriotisme mooy ko patriote mooy koo xamante ni njëriñu dëkkam lay njëkk a xool kon amuñu droit ñun di bokk ci ñi nga xam ni ñooy propagande di jàpp ay voix jàmbur di monter jël ay photo jàmbur naan kii mooy jabaru Mame Mbaye Niang mooy kii mooy yëpp c'est des mensonges ça n'a pas de sens li am solo mooy actuellement réew kenn du ko foowee ñiy transhumé faale wuñu ñi ngi wax muy leer di weddi weer seen bopp muy leer jarul montage nous partageons les jël réseaux sociaux Nous ñu li a ñu sénégalais solution une solution xam Sénégal wax leen Ousmane Sonko wax leen Ousmane Sonko baax pardon wax leen Ousmane Sonko baax la Sénégal la qui a Sénégal la différence entre un candidat boo y faut ni moom dafa jël lépp jox ko ci un candidat milliards un ay milliards milliards un budget 700 milliards et di nous ba ñu étudiants dans le secteur privé Les étudiants sont di ñu étudiants 16 milliards lañ comme bor wax leen wax leen santé santé des problèmes ni ñi ñaa ni dem am problème ay insuffisance rénale ñi hôpital duñ a faju ay jigéen di ngay euh, fin Sénégal président 700 milliards

wax ko te tax quoi vous n'avez pas besoin de japp ay image du jambour di ci monter di sos di wax tëre say wax na li mamay Mbaye def le fekk lolu amul jaru ko jaru ko Ousmane Sonko dafa leer naññ set wicc te ku ànd ak moom da nga wara a leer naññ set parce que taxoy ba léegi li muy wax yépp ci deug la koy tek ci àqu la laay taalam la koy tek nit ñi koy déglu dofuñu nous sommes conscients donc on n'a pas besoin de montage de créer affaire de coller de couper on n'a pas besoin de ça nous ce qu'on a besoin moy la vérité mooy dëgg bi nga xam moo mën a jëriñ Sénégal te dëgg bi jëriñ Sénégal sama gars yi mooy nga leeral Sénégalais yi carrément homme politique yi ni ñuy sucé suñu deret wax leen lan mooy contribuable chaque jour ma wax ko chaque jour ma bëgg ko leeralaat ne wax leen Sénégalais yi bu fekkee xamuñu ngeen leen lan mooy contribuable nga dem ci maire bi jaay caaf fii wala maire bi jaay cere ci bopp koñ bi nga ne ko yaay booy xam nga natt Sénégalais yi ku xamul contribuable xam nga luy natt 10 jël 7 yi bokk nañ ci natt tontine nga ne leen yaay booy da ngay natt mu ne waaw natt bi nga ne bokk pour lan la mu ne la xanaa pour teggi pour defar sama cere wala pour jaay sama télé wala pour defar sama kër nga ne ko nag bis bu jot yaa ngi natt ci loo xam ne yow yaa koy natt yow ndax fii nga toog dañ lay fay dagg juuti soo jëndee tàngal fay nga juuti mbuus boo ko jëndee fay nga juuti juuti juuti yooyu ay dërëm lañ ci dagg ñaar dërëm fukki dërëm ñaar dërëm fukki dërëm la ñuy dajale loolu mooy argent contribuable mom lañuy fay Macky Sall lal ba muy teud lax ba muy lek ka koy tok auto ba muy dawal essence ba ca nek wax lan li c'est que li tass len ko expliquer len sénégalais ñu xam ngeen wax len ñoñu nak tay dañ ngeen da ngeen nat nat bobu nak sen tegg ci nat bobu nak moy lan yaay boy moy courant bi ak secret ci yegg bu mucc ay moy nga mëna dem hôpital faju faju bu mucc ay moy nga mëna joggé fi dem way wala nga dem Tambacounda ci dem bu mucc ay moy nga mëna jënd essence ci mucc mucc ay moy nga bëgg tukki tukki ci mucc ay moy bo nekké bitim réew nga bëgg jot ci sa passeport nga jot ci jot bu mucc ay c'est que vous que expliquer Sénégalais nous xam ko mais vous n'avez pas besoin de Mame Mbaye vous dafa jaral couper dafa jaral jël jabaram waxul fan la 29 milliards de dugg ñi ñaa ngi koy l'air de Mamour Diallo 94 milliards Vous ngeen 1 milliard xajul ci village qui n'a ñi wax leen parce que ñun la jeunesse ñun moi nous ñu dem expliquer 1 milliard vous ci village 1 milliard vous avez ci poste de santé bu baax équipé ko baax 1 milliard benn nit sàcc 94 milliards 94 milliards vous vous rendez compte de ça benn nit ñu jiñ ko 29 milliards 29 mille millions yooyu ngeen di wax nit yi ñu xam ko ay transhumance yi ñuy def ñu topp ci di wax naan diw dem na kee na ñi dem ñëpp kenn toppu leen. Aïssata Tall Sall kenn du ko topp ko toppoon dañoo mere Macky Sall mere Tanor Dieng ci ànd bi mu ànd ak Macky Sall tëj Khalifa Sall ñooñu ñoo toppoon Aïssata Tall Sall ñooñu bu Aïssata Tall Sall ci Macky Sall dañ koy bàyyi duñ ko topp.

Macky Sall fexe na ba parti bu créer créé beaucoup ci pour bokkul ci ci élection yi loolu soxor googu ak góoree di googu noonu nekk ci nit kan kan dem di la méchanceté te a iñaane santono ku iñaane santono a koo xam ne da nga da nga PS Khalifa Sall dem ànd Tanodien. Tanor Dieng Tanor Dieng dafa a te ku iñaane a sa deewin day ñaaw

parce que ci kaaf ga lañ nekkoon dañoo gënoon uti lu ñu for rek té loolu lañuy wër luñu foré lañuy la ñuy ut léegi nag ñi nga xamné nak actuellement nak ñu nekk en 2019 Sénégal wara am changement mo am ay jeunes rappeurs artistes comédiens le peuple sénégalais conscient fo dem ki Sénégal Fouta Tambacounda Ziguinchor Matam Kédougou ñepp génn gis ben ben candidat bo xam muy Ousmane Sonko mu ñu leen discours bi nga xam té te le discours cohérent discours bi nga xam dafa adapté wu tolok jeune population manam libéré bi nga xam moy libéré suñu peuple libéré bi nga xam moy libéré Sénégal ci njëriñam non ñun ñooñu lañ andal mais bu len tardé si détail yooyu quoi ci walu ay transhumance ak yooyu c'est très important donc ñi li ñi négocier moy Sénégal te Sénégal lañ sen Sénégal lañ sen bop lañ jaay jaay ñu Sénégal Sénégal mënuñu ko jaay parce que jamono bu nekk yalla dina fi indi ay jeunes yo xam dañuy conscient ay jeunes yo xam dañuy fexé pour nekkal taxawal deug ta cette fois moom c'est fini cette fois c'est fini pob bi jeex Sénégal kenn do ko Sénégal kenn do ko waxaale Nous monnaie wuñu Sénégal duñ ko monnaie duñ ko monnaie demal xol fo dem Casamance ñi ñi ni ñuy génnee ak doolé demal Tambacounda Fouta ñi ñi ni ñuy génnee Ousmane Sonko ak doolé demal demal Rufisque demal fu neex amul njaga njaay waa joxé wuñu fukki mobiliser wuñu kenn t-shirt ñi ñoo jënd seen xaaliss dem di défar ay t-shirt donc ñi conscient nañ quoi bu ci nga ay ballo dara lañ boobu ba ñuy si c'est direct au Sénégal am ci lu nekk yor ay 4-4 symptômes doom nekk li jàngi bitim réew bu ñu faj ñu dem bitim rew yak santé bi yak ñang euh, euh, mi yak lepp ñu yak ko histoire au Sénégal sax xamuñ ko kenn ci ñom gor gor lu pour lenn lu jëriñ Sénégal taxaw ba léegi da ngay romb dekk yi waxuma la dekk yi amul lenn lu am Sénégal tali yi baaxul autorité amul lumière loolu ñitt ñi xam nañ ko donc ñom du ñom ñoo fi nekk di transmettre ñu leen di topp kenn topu leen kenn message bi dal vraiment loolu la bëggoon dal vraiment ngeen comprendre ko ma ne ni baalu àq bu baaxa baaxa baax a si wax ji dëgër na liñ ci jublu du dara dul rek xam nga defar ak leeral parce que il faut ñuy leeral nit ñi parce que nit ñi defar dama japp ni dañ xaw a nax ci ay détails quoi wala seytaane mooy jax-jaxal seen xel donc c'est très important ma ngi siyal ñëpp di bëggé ñëpp fu nek fu nek ma lay bëggé di la wax ni Karim Gueye la woon seen seen frère Karim Gueye activiste rappeur euh, Mamadou Mouwane nitu dëgg moo doon def live ak yéen tey di leen wax si walu ñi nga xam dañoo tranché le 24 février inshallah rabbi ñun ñëpp nañ génn fi ne ni xam nga luy coowle moy dem jëli sen carte yi fu carte yi nekk demal récupérer ko kep kuy citoyen sénégalais demal nga récupérer sa carte nga téye def sa poche élection yi nga xol fan ngay voter nga dem nga voter ñu sanctionné leen ñoom ñep wuli leen bañu ñu set suqi leen ni giraar tek leen ne teg fi ñi jëriñ réew mi Ousmane Sonko mi te mu nekk njëriñu Sénégal yépp ñi ñep ñu and jële fi tiaxan bek fen bek po bi ngeen baal ma tek fi Sénégal bo xam da fay leer ma ngi jégalu ñep di siyaar ñëpp encore lu fi baax ngeen xam ni sunu borom subhanahu wa ta'ala la lu fi bon ngeen xamni man la rek sama matadi sama di sama yaxamti ak barbe ak yoy xam ngeen ni wax bi dafa gaaw mais nature la du ci man nak sama nat dama ko tay sax donc ma ngi bëgg ñëpp di siat ñëpp di leen balu ak bu baaxa baax nak lu ngeen fi dégg lu baaxul rek xam ngeen ni bëgg def rek luñ ci jublu nañ ibbi suñuy bët ñu xool njëriñu sénégal nañ ibbi suñuy bët ñu baña topato ñi nga xamni dañoo jaay seen ngor yag na waaw ndax ku mëna wor sa frère bu ñu boo ay parti depuis des années et des années ñu japp ko tekk ci kasso bi nga teg ba bare Macky Sall tëj Khalifa Sall ci ñaata milliards 1 milliard et quelque dem japp baye fi ay sàcc ay 94 milliards ay 29 milliards ay tant de milliards mu baye leen fi han ah, ba pare yow nga baye parti bobu dem top ñooñu lan nga fay outil moy sa toroxtaange des fois nit dañ li olof naan njëlbeenu toroxtaange daa ko dégg foofu lii njëlbeenu toroxtaange la rek jixna ba pare dafa leer inshallah allahu rabbi Macky Sall va dégager il a perdu le peuple va voter dañ koy sanctionner on va voter pour Sonko on va voter pour le peuple sénégalais le peuple a choisi de l'air.